al mubaaraka bari wuñ moo mu taa yinun aji ràññiku la xalaa kulli man ci képp koo xam ne raa gis na man koo xam ne yaqusaho dana ko jële xan ci moom ay yaqusaho mu jële ko ci moom soo am na yemoo la kaana moo xam nekk na indawoo fa moom wirdu wirdu xablahoo ci ak jëkkam am laa wala déet li annahoo ngir naka moom surita sarteef na fii ci moom faxal lumu ma xam lu la nga xam ne yee jibu dana war xalaa kulli mukallafin ci mit mukallaf minal foroodi ca farata ya al ayniyati yi ko jug jëmm al ayniyati wa haadihil maziyatu bi la ngëneel lab ara mësuma gis man kenn koo xam ne ishtarataha sart na ko minal a'immati ci kilifa ya fi i'ta ay awraadihim ci joxe seen wirda wa kafa doy na bihaa ci moom masiyatan ci nganeel wa xayri daalika ak lu dul loolee mina shuruuti ca sart ya allati yi nga xam ne toosil danañu àggale al murida taalibe ba ila ridwanillah jëm ci ngërëmul yàlla tabaraka wa taxala ka tarkil bàyyi bakkaar yu mag ya wa tawbati ak tuub wa mulazamati salaati ak taqoo julli fil jamaahati ci mbooloo wa ahli taaxatillahi ak ñu topp yàlla la mu ne na la wóor ne wird yi daal ku gis ko la ko mën a jox war ngaa taxaw ci mu jox la ko nga daal di koy jëfee moo xam yoroon nga wenn wird moo xam yoroo woon wenn di wax ni ko sëñ bu waxee woon ku fekkoon nga wer wenn te nga mën leen a boole kon leer la ci kaw leer ku yorutoon wenn nag mbaa mënoo koo booleeg wa nga yor kon nga jël ko moom rek ndax mu ne liñ ci sart ne ku ko yore baaw rek farata la ci yow du mën a ñàkk daal nga xam lépp loo mënta ñàkk xam ci sa mbirum diine sart boobu dafa rëy rëy ba nga xamee ne ne mësta gis kenn ci kilifa yi koo xam ne boole nga ko ci sa sarti wérd ak sax yeneen sart yi nga xam ne ku sàmmoonteeg ñoom daal di àgg ci yàlla incha allah àgg ci ngërëmam ndax bàyyi mboolem bàkkaar yu mag yi te saxoo tuub bàkkaar yu ndaw yi ak saxoo jullee ci mbooloo ak saxoo ànd ak gaa yu baax yi sax ci topp yàlla sart yi moom nee na ku ko taqoo rek daal di am ngërëmul yàlla li nga xam ne moo tax kenn ku ne war a moo tax nag kon nee na wird yu daal war naa jéem am ko jël ko te fonk ko wa dalika loolee boo ko gisee faidatuhu njëriñam mooy ànd man naka ka nga xam ne axasahoo jël na ko laa budda mënta ñàkk laxoo ñeel ko min fiali haadihi shuruti ci jëf yi lay sart wa illaa budul loolu lam yantafi du jëriñu bi ci moom li ànd xoo ngir naka moom laa yasixu du wér duunahaa ci lul ñoom limaa ngir li nga xam ne xoo moom maaloomu lu ñu xam la min ànd charte ci naka charte ba laa yu defu ko am mbaa defu ko fekk dunal mashruuti ci lu lañu sart wa man waa zaba ku taqoo ala haadihi ci yëlee sart al madkurati ya di ñu tudd maha dikrillahi ànd tudd yàlla allasi tudd ga nga xam ne tadam mën a xoo làmboo na ko hada wird wi la wird al mubarak wa di wuñ barkeel wa asmaahi ak turam yi way rafet wa ayaati kitaabihi ak laayay téeréem alxasiisi ba aji wa qiyaami leyli ak taxaw guddi ci ñoom wa salaati ak julli ala nabihi ci yonanteem bi alayhi salaatu wasalaam la budda mënta min wusulihi ci àggam nga ilallahi jëm ci yàlla tabaraka wa taala xalal xaalati mbir ma mbaa ca anam nga mbaa ca melowa al maradu yetti wa di wuñ gërëm dafa bind nag ci lu lay doon doon nag bilaa tara yusin bu dee ñett tomb muy ci lu ak yeex jaxal naa yàlla nu def allahu yàlla minal mutahaafisiina nu bokk ci way wattoonte ña bokk ci way sàmmoonte ña àll yi cuur di alqaa'imiina way taxaw bi idaamati yi ci ak saxalam aana al-layli ci waxtu yu guddi wa atraafa nahaari ak cati bëccëg moom mi taalif bi mu nee sart bi sëñ wax ci wirdu wi ci ku ko jël faaw rekk nga jàng ba xam la nga war a xam ci sa mbiri diine te mu ne mës sa gis kenn ku sart sart bu demee noonu ci mbooleem borom wirdu yi te mën looloo tax nga war a fexe ba jël wirdu wi mu ne nag ku jël wird wi kat sart yooyu sëñ bi wax faaw nga sàmmanteeg ñoom mbaa doo jariñu ci wird wi ndax buñ ne nàngam ab sart la ci nàngam boo sàmmantiwut ak sart ba doo am loolee ñu wax mu ne moom nag ci ni mu gisee wird bi li ëmb ci turu yàlla ak ay laaye alxuraan ak liñ ci wax ci di jàng alxuraan boole koog julli wird yu deme daal ak sart yiñ ci wax moom tax tax na moom nee na mu jàpp ne ku jël wird wi te sàmmoonteeg sart yi faawu faawu mënta ñàkk nga daal àgg ci yàlla ci na mu gën a rafete ci lu dul genn yeex mu ñaan nag yàlla boole nu ci ñi sàmmoonteeg wirdu yi taxaw ci nañ ci war a taxawee di ko def moom wirdu yi ci waxtu wa nga xam ne moom lañ digle ku ko ca def dafa mel nag koo xam ne sart yi daa diis ci moom itam bu mu tax mu ne ndegam kii nee na ku deful sart yi doo am liñ ci digg kat man du ma ci jéem a dugg déedéet doonte mënul ci sart yi benn benn itam na jéem rek def lam ca man na jéem rek def wird wi ci boppam sartee lu mu ca man baax na lu mu ca mënul baax na xëy na lu mu ca mënut dana wëlbatiku man ko ci baaxu yàlla ak barkeb sëriñ bi